e jang tolum ɓe batari bata ketala fa tambi tame yalon ka warta malo muna ba bondinolan kan ha mbe mati konton na mbe lor nga koma bi mbe lor nga koma sama ani menu ba koma mbe be konton na mbe duwale ha yo ne sate kono jang gi ko akan tora kolongo jam fatala fa tambi tan han polio ni dun tala ibulu abele ke mera tu yamoyle yonner lefta robini ay satuɗo ay sanse ay ce kutamate giyo fele ni ya selendi giyo aka wulele giyo aka wulele ay wule tew ni ga bi luntaŋol ite kuno lala ite min no lala mu ne sonn nañ lool lool lool ci kanamu yàlla ndaxte jama dafa nekk dëkk boo xam te nii boo amee gan sax da ngay rus pour xellil ko ndox ndax ndox bi xonk na bu xonkaay boo xam te ni nit mënu koo sangu sax ba ci xalaat di ci naan métti na loolu te fii dëkk cosaan la boo xam te nit ñu bëri dañ fiy dajale donc nañ leen dimbali sonn nañ lool lool lool si wàllum ndox bi defar leen forage bu bees tàq ndax forage bi weñ la mënuñu koo defarati parce que weñ la yàqu na nañ leen defaral forage bu bees tàkk ndax sonn nañ loolu yo ani saate to ne gamu naa siita lun togo men ka dungan setoro taal aka si a korda o korda i tata ge luntaŋo be siyaringel fa tamita ko me ye lanka tamita luntaŋo wo la ye gi a korda kono ye a moyi le yo saŋ niŋ manjuro bine giyo soto a batandi le fo ŋa taa jii diimaa koloŋol to parce que a loŋ buka soto no luntaŋol niŋ be kunna i hani paree soto no jii diima a soto ka kembulu probléme la ti lafita nginela giyo aliye makoy ha aliye makoy lafita wala mu ne Njama dafa nekk dëkk boo xam te ni dafay am gàmm bu rëy rëy rëy gàmm bi nga xam ne dajale nit ñi fu ne la ñuy jóge si àdduna te nit ñi bu ñu ñëwee yow mi dëkk si dëkk bi da ngay sonn sonn sonn sonn te lenn waralu ko lu dul wàllum ndox ndax nit ay doomu aadama fu ñu daje ndox di cee am cër bu rëy rëy da ngay obligé di jaabante gi teen ya da ngay root bay bëgg a dee jigéen yëpp sonn nañ ñëpp sonn nañ leen nañ dimbali si wàllum ndox bi dafal leen forage hmm. waaw waaw yo lafita wala kuwola pour mu aliyam makoy par ce que jama to tatale e hmm. kon jama gamo bije jiyo soto sotola fente sotola ah, ha waye hmm. mbatandi baki ha mbali ko mabi mbali ko masama aliyam makoy jama a ala beti yalla fita wala aliyam makoy par ce que dingun men fawni yalla ko ma wulun to lañu robine le sumo kon ay wuluta kon ɓi wolɓe ɗamen to ɓi wol dewnu wol dewnuwol fututat ha lafita wolla aliyam makoye ha mu ne forage ba mu nekkee ci état bi yàgg na lool ndax xale màgg na fi ba am ci jëkkër donc loolu yàgg na mhm. euh, te nit mënul dund sans ndox mhm. nañ leen dimbali mhm. autorités yi na ci ñëpp jàpp képp koo xam te bonne nga képp koo xam te si nguur gi nga nekk na nga jàpp dimbali leen ndax ñu am ndox ndax turu njaama dem na fu ne wër na àdduna du dëkk bu ndaw ha alsidna kumo aliya sindi makima mba kuma bi mba kuma sama ngamuta bulu tang anim fula ha nee wax ji nii buñ ko mënee yóbbu sax ba ci njiitum réew bi kii di maki Sall bi nga xam ne ni ñoom moom lañ àndal donc dañuy ñaan autorité yi di ñaan képp koo xam te mun na leen dimbali ci wàllum ndox nga dimbali leen ci forage bi. incha allah na ci jot. yow maal kontoon na njamankool maal kontoon na forage o yo foraso ñin bira tiñata mbatatale de jikuwo mbatatale kandu folo folo ka bira man tiñan ka min soto je sa bira tiñata mbatatale ñin jama duwa min tambita te moli batata baake an pon lollonde ka jiyol bi ka jiyol bi fa suki sanna woni sante ma han kabi jikuwo ikata jiyo bi ka boyla kordade ikata jiyo bi fo jana mi yalan ko jaar meñol ñando won bata folowti yow mu ne forage ba mu yàqoo ba léegi jigéen ñi ñoo ngi suufriir ñoo ngi dund galeer ndaxte ñoom même bu évétement amee fi wala programme boo xam nit ñi dañuy joge fu sori dañuy obligé dem fu sore sore sori pour uti ndox mun a teral ganeeg yooyu noonu rawatina ñoom seen i vie quotidienne depuis forage ba mu yàqoo ba léegi ñoo ngi souffrir. a mhm. continuer yo ntol soto a di a tañe kanto fo nin dahata ninga soto fona diya tañende haata kanto ɓiri ñum fora solo tiñanin bintem molɓe bata dorona kon ninga soto a diya tañe mu ne du ñu tayal di wax ni forage ba mu yàqoo ba léegi ñoo ngi souffrir te boobu ba léegi kenn wàlluwu leen buñ amee ku leen dimbali ñu jël yo mbela fere min na wala muñinte forage o kanto ninga jiyo soto ndahatale nin ma jiyo soto mbatatale bar ninga jiyo soto ndahatale ha mu ne comme ndox si dund la bokk ñoom tey jii li ñuy ñaan mooy ñu leen mën a dimbali defal leen forage bu bees tàkk tàq ndaxte tey nit mënul dund sans ndox. kolon ka jiyobi kolon ka jiyobi kolon mètre mois anin fula e saba ila ñin ka jamfa koliyo ka jiyobi wala kolon mhm. mois mu ne forage ba mu yàqoo ba léegi si teen la ñuy root teen yoo xam te bi ëpp na vingt ak la si te boo ko ci root di nga am ay mbàgg yu métti loxo yu métti mun nga cee jël méttit bu ne ak risque yi ci nekk donc nañ leen dimbali bu baax a baax ñu am forage yo Macky Sall la karo bii bi na forage o wole ɓen tol solare bi mbakoma bi mbakoma sama wole ɓen tol solare ni ñi wo soto mbakoma bi mbakoma sama ha euh, mu ne dëkk bi manqué ne lépp lu bëri manqué na fi mais tey jii li leen gën a soxla mooy wàllu ndox te wàllu ndox pour ñu mën koo saafara foog ñu am forage bu bees taax donc ñoo ngi ñaan njiitu réew mi ak ñu mu àndal yëpp ñu dimbali leen defal leen forage bu bees ndax njaama ñoom lañ àndal. forage bi ma tiim forage bi nag mooy représenté forage bi nga xamante ne moom moo nekk ci commune bu Diaroumbé lii nag ay fer la ça date depuis 1985 bu ñu xoolee màgget na ba tax na ndox mu muy génnee sax day xonk cur. askan wi fi dëkkee am njàkk ak njaaxle ndaxte mënatuñu naan bi ndox ba tax na ca teen ña la ñuy rabaatru ngir mën di naan ndox mu la looluy tax ba askan wi ci boppam am ay jafe-jafe ci wàllu nekkin ndaxte boo xoolee ci ginnaaw foofu lañ doon def li nga xamante ne moom moo di ndox bu doon permettre jur gi di ci mën di naan am na ay village yoo xamante ne ñi ngi juste à côté ay village yoo xam ni ay sàmmkat rek a fa forage bi moom moo leen doon alimenté ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi daan ci mën di jëfandikoo waaye it mala yi di ci jëfandikoo euh, tey jii lu toll ci 19 village privé nañ leen li nga xamante ne moom moo di ndox ndax forage bii ñuy gis moo leen daan alimenté ba tax na nag ñu ñëw fii ngir waxtaan ci lu waral forage bi yàqu ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi di dund. jaay ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ñu am mbégte bu baax ñëw fii nga xamante ne moom moo di Diaroumbé mhm. ñoo fekk la ci sa village mm, njama nga xamante ne benn village la ci 19 villages yi nga xamante ne euh, tey jii nii ñoo sekk li nga xam ne moom moo di forage mhm. waaye nag ci biir village bii nii euh, ñu gis ni que ni nag fii la ñu implanté li nga xamante ne moom moo di forage bi mhm. forage bi 85 wax nañ ko ci lañ ko implanté ba tey alors est-ce mën nga dikkaat un peu ci historique forage bi. Euh, jërëjëf euh, sama sama nit euh, mon frère jërëjëf li ngeen ñëw village bi kontaan na seen ñëw parce que village di la soxla. Mhm. pour mu wala jafe-jafe lu ñu dund. Mhm. loolu moo tax depuis mhm. depuis depuis presque quelques années. di la ñu war a mais comme tey am nañ ko ñu ngi sant yàlla après ñu remercier la forage bi xam naa depuis mille neuf cent quatre-vingt-cinq la parce que daa fekkee man mi xam nga deux ans la am deux ans ba tey presque trente ëpp naa trente quatre ans ba léegi forage bi lañ dund forage bi boo ko gisee rek mi ci région Sédhiou presque ñëpp bi changé nañ forage yëpp sauf forage Ndiama boo demee fi bloc changé nañ ko boo boo demee bi commune de Bonna change nañ ko mais ñun suñu commune commune de Diarmé village de Ndiama Pakaaw ba léegi même boo ratu ndox bi pour nga a naan ko doo ko mën a naan léegi naa ndox mi day rouge. day rouge complètement day rouge mais sa ba boo xoolee tamit bi def ko si sio bi bàyyi ko foofu ba presque une heure rek ci suuf da ngay gis fer nit nit même même ay ay animaux du ñu ko mën a naan loolu moom kay ay ay jafe-jafe la ay problème la village presque bu déploré na loolu ça fait comme presque des années léegi ñun pour ñu mën a naan il faut il faut il faut ñu ut ay bi puits bi il faut ñu am faut ñu am am am na yeneen kër. am nañ ko am na yeneen kër amuñu ko léegi maire dañuy def déplacement ay presque ay ay ay centimètres waaye kilomètre pour ñu dem ut ndox indi ko kër da ngay gis maire mu am doom ba mu ëmb bi bi jël bassin bi def ne dem rot ndox loolu mu kaay ay problème la. Mhm. loolu moo tax bi dañuy bëgg dañuy bëgg wone état Sénégal ñu wone askan wi kon bi village Ndiama njama pakaw ci commune euh, Diarmé département Bounkiling ñoom ay jafe-jafe ndox la ñu am depuis des années. Mhm. parce que boo gisee forage bi ay weñ la. weñ moom kay bi bi bi kenn du ko mën a daal parce que bi bu demee bi ay dem ba ay certain bi certain at. Mhm. franchement bi day day changé mhm. du du nekk comme ay bi yeneen forage bi forage en en en banco. voilà ñoom foofu mën nañ comprendre mais forage genre genre de mi mu ka non non alors euh, tey jii nii jigéen ñi wax nga ko. Mhm. ay jafe-jafe yu metti la ñuy dund. Mhm. Euh, bu ñuy root. Mhm. dañuy gis ñi def ay kilomètres. di dem di ñëw. alors yéen góor ñi. lan mooy seen taxawaay. pour que tey jii nii souffrance boobu noonu jigéen ñi di dund. mu mën a wàññeeku. voilà comme comme li nga expliqué rek parce que ñun tamit lu ñu mën a def parce que lii liggéey état la liggéey état la. liggéey euh, maire la liggéey président conseil départemental la parce que ñoom ñoo représentant état fii mhm. ñoom ñoo war a ñëw xool état bi euh, état forage bi ñu ñu dem parce que bi bi représentant état bi bi n'est-ce pas bi bi population moo ko délégué pour mu pour mu mu indi jafe-jafe ci bi état bi. Mhm. woo ne ko ah man de sama askan wi lii dañu dund. Mhm. dund bi moom baaxul. léegi ñun goor lu ñu mën a def ba lu ñu def parce que boo boo dugg bi yeneen kër gi bi deux ou trois da ngay da ngay fekk puits foofu. parce que ñoom tamit dañ koy bi bi ut bi benn benn waaye pour mu ñëw gas ko foofu pour ñu mën a am ndox maire mu am doom bootu sa doom dem ci bi après bi bi jël pële bi def loolu ma day indi problème. loolu ma tax ñun lu mën a laaj lu ñu mën a ñaan ki lox gouvernement ci lox Macky Sall comme Macky Sall mooy suñu njiit réew mi moo kilifa réew mi lu ñu mën a ñaan parce que sa askan wi mun na nag munul dund dund bu dund bu compliqué. yenn nguur yi voilà. comme comme li ñu expliqué parce que ñun ñëpp lu nguur gi la ñu bokk. kon li ngeen bëgg daal moom di euh, ñu changer leen puis euh, forage bi. Mhm. ba ngeen am forage boo xamante ne dafa méngóog jamono. bien sûr loolu la ñu bëgg ñu changer forage bi ñu indi forage bi loo xam ne mi ngi ak jamono parce que forage bi day day alimenté dix boo jëlee yoon bi Tambane nga jëm. tam da ngay romb Tambane ba ba ba demee ay yeneen village bi bi yeneen bi village village la. ñoom presque ay étranger lañ mais suñu suñu maam ñoo leen jokk bi place boobu pour ñu toog toog foofu bi bay foofu dund foofu. Hmm. léegi ñoom tamit suñu gan nañu. Hmm. léegi sa sa sa yaati du mën a nekk jafe-jafe yoo nga tëdd na la tranquille loolu moom kay hmm. ay problème la. ñun ñoo mën a faj bi seen seen soxla. léegi ñun bu ñu amee problème. ñoom forcément rek ñoom tamit forcément loolu la ñu dund. Mhm. Mhm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Mhm. di am mbégte bu baax ci ni nga ñu expliquer li nga xamante ne moom moo di la situation qui prévaut. ñu fas yéene dem Moussa fi nga xamante ne moom moo di ci jigéen ñi fekk leen ci fi nga xamante ne moom moo di euh, ci fu ñuy wëggee ak génnee ndox mi ci teen wi ñu waxtaan ak ñoom ñu xool yan solution lañ mën a trouver pour que li nga xamante ne moom moo di jafe-jafe yi ñuy dund ñeel seen forage bii nii nga xamante ne. moom moo nekkoon source d'espoir pour lu toll ci 19 communes ah ñu yaakaar ni que ni rek bu ci nguur gi jotee monsieur le maire dina porter le plaidoyer euh, pour que à ce que ñu am beneen forage boo xamante ne moo gën a moderne. yow salaamaaleykum maaleykum salaam yow forage soo ñi tooñaa tooñaa ati ñaatale. barantolu forage bi dëgg-dëgg dafa yàgg quoi. yow ñun colon me yaa jëtante colon métaro fula. wo métar mo wannen fulo mamone ten bi métar bi 22 22 métre yo nka poli yo fana san anin bako akwai ka poli mune da ya jende poli ak bag bi yo ni i moo ab jibi yo la kolon jamfata bi ten bi dafa sor ko i bulol be ka wulele tu mamone loxo bi yip de yako de yako quoi a jibi yo kole ata bakale mune ne bi dafa jafe-jafe ko yow saa la fi ñu ne la. moom mu ne dafa bëgg. pour ngai robino euh, foraso soto foraso me a beteyata mu ne dafa bëgg forage forage bu bees bu bees la ñuy bëgg ñu bëgg quoi. yow ni woo sotota sata robino lu si soto no a kono le muso le daha. dafa bëgg euh, forage bi boo amee forage robine robinet mun na mun am boo produit euh, ay maire yi. dañuy dañuy kii quoi dañuy noppal quoi. wala mu nag moot. wasalaam loolu loolu moo am wax bi na wasalaam. yo robino e eh, foraso ñi foraso ñaman beteya kaatu ne a jiyo keta ye jiyo fundita a jiyo katu leerin forage bi ndox bi bu génne rek day day day day rouge bu bu bu ko rek eh, du neex sax affaire dox bi baaxul. moom ne forage bi château eh, bi dafa yàqu. ndox bu bu demee foofu affaire bi day kii day xonq boobu baaxul ñun léegi ñun bëgg na ko pour ñu génne kii forage bi pour bu bees suñu amee rek dem te pour affaire booba forage bu eh, forage engin bi pour mu génn foofu mu problème mu eh, beneen mu def ko beneen bu bees quoi. fa wala wala wala diya tanye. loolu la ñu bu neex. waaw ñi ni yaa kije microbe katar jëlee kaa ci kon mu ne bu ndox bu ñëwee foofu dama microbe dee ñëw foofu. forage bi yàgg na de yàgg na depuis man depuis man damaa nekk xale. forage bi mu foofu. ba léegi man am na léegi ba ñaar jabar ba am doom ba léegi loolu la ñu waaye ñun wax nañu ko ba yàgg. pour moom pour ñu defaral li waaye ñu gis nañu ko comme affaire bi eh, forage bi yàqu na léegi dañuy wax pour ku ñu ñëw da pour ñu dimbali ko pour génne ci forage bi ñu indi ko eh, forage bu bees hmm, loolu la ñu bëggoon. Hmm, wala mën na ko muut. incha ah. pour boo ñëwee naa commencé ni ngi naan téeméer saa ngi tan saba. nee na groupe bi boo commencé ba léegi moo dina 30 ans. Hmm. nga foto ñoo ma. nko nga den ne ndoko ne dingolu nga den purun sin fanna fa nee na makay ak xale ak maire yi dañu manko pour dajale tool bi o kafu ñoo mo ke nko fan sin fanna fa man na semboo soto birin giola karola fo sansana karola man sembo soto benen bata eh, nee na eh, projet bi lu ñu bëgg daal eh, dañu bëgg a ndox ak lu bëgg defar kii bi tool bi mais amuñ doole o saygi tan saabu oɗen mbiyetema sawo sanen tula gama um fana kata ga bogo tena wuulo kono gana ga yiro te ga lo nene min go commencé beleji ñu ñoo dem ci àll bi gor eh, motte yi eh, ñax yi pour indil kii bi te lu ñu daal pour defar leen kii bi moom loolu loolu lañ bëgg. ni nga ko boog sama na ngaa loo mbulata nga kolo nga tili kilo fulan jang kolongo ñiye boy ata eh, kilaat eh, eh, ten bi tan ten bu ñu am ne ñoo ñoo koy kii seen bopp ne buñ ko gasee du du sori du yàgg sa mu daan nga sawundu laa doota nga doosi nga fii fio ngol walundi foy ta foy ñi si tili kilen tili kilen ni solu yaate buñ bu ñu ko defaree pare du yàgg sa nag yi ñooy ñëw di bomox seen kii bi pour ñu yàq tool bi yëpp woni ñeneen wala mun ne ñatan ko bin se ku da bol kam ma ko ne tiñara kan akili te ya taram be wulo kono han bi woni santé man nim bata dam ma ne buñ ko commencé béré ji coono rek lañ am coono kese lañ jël la fa jël seen président bi Cheikhou Daba moo leen jàppale guddi ak bëccëg nga soble kii uh-huh. nga kuccaace kanja dañ def soble ak bisaab kanja ak kanja jaata ak jakato patanse ak patanse ak ak pompiteer bari na ngay i ka ñaala bari ni sol ka bee ñaala buñ ko bee pare day rafet mais du yàgg sa nag yi ñëw ñëw di ko yàqu nee na am na ñuy ñëw pour wax leen mais boobu bële ji gisuñu leen groupement mu solu moo occome saba ah nee na jigéen yi trois cent personnes la groupement bi kiyelu men kam maa koye moo tan saba góor yi trente trois personnes dolle ñen kan kay kay tan ka kaati yo dal kaati yo fengo fere nda ma sakunda ka fola be be mbul nan ma financement solo dootu na kan quartier eh, bele eh, daaru mbaɗi projet bi am am soto mais bu ñu commencé ba léegi musuñu am financement a quartier de d'accord musuñu ko am wili mo anise abe mbul bar han lunkin dana ma financement soto nañu kankan ñun seen xaalis bopp lañu am na na la fo mint katabay lu ñu bokk daal folo folo wala mu jiyot fula njang faro kono nim bula rege ci faro bi tamit ngi daboji biri subaaku ma ñum date tey fa 5 heures ni ngeen da boobee ñoo la dara musul faro bi tam dañu bëgg pour machine bi ñu am ah. bu ñu amee machine bu ñu leen béyle béy loolu tamit bëgg nañ ko eh, kii bi tamit bëgg nañu pour président bi bu dee mun nañ leen jàppale pour ñu jàppale ñu financement bi wala jàppale ñu ko mën a eh, liggéey ci kii bi tool coo bi waaw bii bii ni naaɓente ngeen kuusabo faro tool giyew wol ɓe mbatta nder baake bi jama jambe damen ni ngoo soto oye mo solum batata baake ha ah, batata eh, jigéen sunna biri suba fa 5 heures mbe ngi dan mbulo la faro kono gi kuma nan nimbo to nga fay ngi kono o fana nga bongo te daro musol mbatata to len jama ja am jigen son nan ni bu da pour euh, président Macky Sall jàppale leen nga foyele ni woli sitel kal kun ni tara faro comité rirato ni ye dunta na kankan ko nga foy ko to len ni sint ne wax na borom nag yi ñu ne moom ñu nag yi ah. te bu ñu ñëw pour yàq tool bi tamit bu ñu bu ñu bu ñu leen yóbbu ci chef de village bi mhm. ñoo ñoo bu ñëwee dañu ne ñoom ñun naaj bi moom ñu ko. ah fële mbatata nag. mboota wax nañ ba sonn mhm. tey duñu bëgg daal tout. yamaanoo do wula maanoo boota. min ta bi la maanoo domala ita kututile ge ntolo batari nge ngi sate kono ja he ntolo batari ali wo fo makki ala fa ko kasmasi la un jama ko be batari bira do ko fa bal wor fannala fo kadino fannala sardino fannala makke fere kay makoy musol batata la bataata naa yem maa koy bëgg a pour président Macky Sall jàppale leen ci euh, bi mhm. ci côté euh, faro bi tamit ak ndox bi mhm. ci ci dëkk bi tamit pour ñu jàppale ñu nin tole nga doo kuwo ke balu ñaa kotin dembul kaa doma mu ka fen soto ni nga doo kuwo amako waafo sin ko rek balu wodi ni nga funan kaati nin dole faro ñi ñaani sol man tor dol si tala foye boto tan saba soro dol si siyawot bari bo do kula beyana ba dama la tele balwo fansel sa konen si fensa ñu luñu luñu bey duñ ko jaay ñun ñoo koy dund suñu bopp mhm. duñ ko jaay kenn ñu ñoo koy utiliser ñu amee forage moo ñu dimbali te c'est fii sonn nañu fii trop ñun fajar la ñuy ñëw fii quatre heures de matin mbaa trois heures yeneen groupe day ñëw ñu roose trois heures ñoo ñu ñibbi quatre heures am na ñuy monté tam bu ñu paree ñu ñibbi dañuy mujj ñoo ay cinq heures six heures ñooñu tam ñu roose ñibbi ngoon tam bu ñu ñi nga xam ne roose wuñu ñooñu tam ñëw ñu roose te loolu boobu sonn nañu boobu liggéey bi métti la nag ci ñun te ñun ñoo liggéey sa seen kër tam boobu métti na waaye tey li ñu bëgg a fii ci nguur gi dimbaliñ forage loolu la ñu bëgg sonn nañu de xaalis de bu ñu fay ku nekk semil lañ fay ñu mën a gas teen bi ku nekk day fay semil ñu gas teen bi waaw xam nga bu deme ba sori rek ndax bi day jafe dañuy woowaat ba ñu gas ko gasaat ko encore waaw waaye ñooñu yëpp dañuy fay xaalis seeku mooy président waaw mooy si njiitaay bi soble mu moom ñetti weer la ñetti weer la waaw ñu ko waaye bu ñu roose itam ba am eh, ñaari semaine mbaa ñetteel semaine bi rek nag yi ñoo ko yam ren saa amuñu fi dara ren ñu fi dara nag yi ñoo ko yam iselal sonn nañu amuñu sakket bi ñun ñoo koy dëgg dëgg ci ci àll bi ñu naa seeti bi ñu bu ñu xëyee rek dañuy dem balaa ñuy ñëw deux jours ñu dem añ kër gi xam nga boobu coono la ñun tey loolu la ñu soxla fii Macky Sall président Macky Sall man kay maa ngi si tey maa ngi foofu ëllëg man man Macky Sall la cent pour cent laa jal Keba Ndiaye ah ñu ngi ñaan de dañuy ñaan bu ñuy amee tuuti ñu jox ñu ñu dimbali suñu bopp ñu yàkkaati ko ñu defal eh, li li ñu def loolu amuñu ko waaw li ñu bëgga kay amuñu ko parce que kii bi moom des na ah, dimbal bi moom des na de waaw li ñu bëgga kay betee amuñu ko yo kontondoro kontondoro nanin ja min keta na banko président président Macky Sall mba konton na ana gbaru na mol be be be kondon na ila hakilo be kan na hakilo be kan suto nin tilo mi yala ba marli banko nyin na alsin na kondon dro sindama nene mu ngi nuyu suñu jiti bi président Macky Sall ak gouvernement bi yëpp yo mba kondon na bagi anin min yalo min be lori na tema na hakilo bal kan suto anin tilo la ñu ngi nuyu bu baax guddi ak bëccëg ñu ngi nuyu ñu mu àndal yëpp yo kumo fulanjan wala muyinti e nabata bunda nañolla bata da wala muñinti kabirin faro kono kabirin talima wulu ila doku bunda aman sanse e daba kalmo min tandi musol la jan min keta habidramita anin na mama kura e min fo mbolo kumo sembentoyandi la ka doko ka semboɗa malla fo n be binto ñin faro kono jan nene maire lum len fii coono bu ñu am ci faro bi ak e, suñ tool kii bi e, moom béleji moom tamit loolu kii nii te dañu am coono coono boo xam ne te lu ñu bokk daal pour ñu jàppale ngeen jàppale ñu ci tool bi ak faro bi kankana bundañi batada min ben bulje musole min fo jang i dasatle bari ni yaji a dasandi ka kumo kunda sutiya ni tilkan do do ko wato shiran tan ni tan nanyol kan yir kalolo kundu ka ce kankan bala ni fi fion dara siran na fama dron ni sol sine sira fi fion tinya nanyol si kumbo ni na da kabirin somanda somanda la seteri ibe tarla janne dol si tar jam fo wuraro viter wala seter dañu dem ci àll bi dak matt bi pour ñoo ñoo pour pour kii ko pour nag yi bañ ko kii mais luñu suñu sago daal pour ñu defal miir bi loolu moom moom loolu moom gën eh, min be marli mansa mansa kunda la jan mu isi kuto di president Macky Sall la kabira sida dɔrɔn sate ɲin b'a yɛlɛ bari president na karo la sanse ma kɛta walimu in wote tan la ŋa mɛrɔ sɔrɔ bari mɛrɔ ɲin ala hakilo bɛ kan na ala hakilo ban kan ŋa su la a fana b'a la kata kuŋo ne pour fo saman sita n'o ɲaami o n'a telefona lu lɛ n'a kɛra kilindi bari ala hakkilo ben kan bi ala hakkilo ben kan kan sama munda moyo na shota baliya e, mbol kono dron nee na maire bi tamit suñu maire dëkk bi wax nañ ko ci euh, affaire euh, projet bi boobu moom xelam mu ngi si ñun mais xam naa doole ci tool bi daal lu ñu bëgg daal amuñu ko te lu ñu bëgg daal pour ñu def ñu ko mën a defar defar bu baax pour nag yi bu ñëwee ñu bañ ko yàqu loolu tamit soxla nañ ko lool yo paranse nin jaton ni wol jabol kolanka min doku nuwo baranka kucal le kije anin yin kanolu anin kanjolu nkol le kije pour nin sama sita e na ñatuta sano ña bari sanni ya jota kenol je sembento ya kamal wala tinna mukol keno ah. a e, part batanse ak jakoto yi bu ñu ko béyee pare après e, kii lañ ko def kaane ak bisaabu te boobu tamit boo ko boo gisee ni léegi duñ ko mën a def kii bi tool bi buñ ko defee nag yi ñooñu du ko yàqu te loolu moo tax euh, mënuñ ko mënuñ ko kii léegi ne lu ñu bëgg daal pour defar tool bi lañ bëgg. dañuy dem ci àll bi dagg matt bi pour ñoo kii ko pour nag yi bañ ko kii mais luñu suñu sago daal pour ñu defal miir bi loolu moom lañ moom loolu moom gën min ɓe marliŋe mansa mansa kundala jaŋ sanna mu isi kutoti président Macky Sall kabira sida dɔrɔn sate ñiŋ b'a yele bari président na karo la sanse ma kɛta wala mu wote tan la ŋa meero soto bari meero ñiŋ ala hakkilo ben kaŋ na ala hakkilo ben kaŋ ŋa suuto la a fana b'a la kataŋ kaŋ ne pour fo saman sitano ñaami wo naatel funalu le naakere kilinti bari ala hakkilo ben kaŋ bi ala hakkilo ben kaŋ ŋa sama munda moyo na shara bali eh, mbol kwa nadron